xam-xam mooy xam li nga xam ne daf laa féete penk ak sowu day jor ak asamaan ak suuf mhm. allamani maa kaana qablal xalqi mhm. man kaana li karami bi karami wa tilqi allamani rahmaan fi safina bi annani xadimu sil madina ndeysaan Sëriñ Tuubaa suñu borom moo ko tànn def ko maanaam mu nekk li naan fadlul taxsiis dafa mel ne ñu ngi ñu ngi ci déclaration sëriñ bi mhm. bu fekkee ni bu fekkee ni loolu la nga may ñu retour waaw bu dee ci déclaration bi la ñu nekk aussi nga may ñu retour ñu nit ñu mën a gën a teew ay cant yu bari day daje ci moom mën nañu koo santale. mën nañu koo santale. dañ koy sant moom ba noppi. santal ko diggante moom boroomam. sant ko diggante ak yonent ko diggante ak yonent bi sallallahu ko diggante boppam. sant ko diggante ak diggante ak moom. santale ko. muy santale ko. santale ko borom. kon nag alhamdulilah ni ñu ko daan defee rek. kenn ku ne la nga mën ci lu baax. kenn ci lu baax. nga am ci pësteef. nga am ci pësteef. jëfe jëfe jëfandikoo ko. ko. loolu rek mooy li ci am solo. daa jiitale alxuraan ji. daal jiital alxuraan ji. niñ niñ daan jiitalee alxuraan ji. kenn ku ne na am posté bu kenn ku ne na bu ko mënee. jàng ñetti kaamil. bu ko mënut it. te man benn it. ba tey baax. bu ko mënut te man koo jàngaloo it ba tey baax na. la ca lépp nag. la na ma ko waxee woon rek. kenn ku ne lu mu mën ci lu baax. lu mu xam ci lu baax. na ko def ngir santale ko boromam. loolu rek mooy li ci am solo. loolu rek mooy li ci am solo. te nag gën a góorgóorlu nag bu baax nag. sëñ bi moom. du du ku ñuy roy. ndax mu ne su koo roy. waaye nag mën nañoo def suñu kem kattan. waaye nag mën nañoo def suñu kem sëñ bi boolewul dara boromam. sëñ bi boolewul dara ak boromam. loolu yonent bi mënu ko joxoñ. loolu ko joxoñ. bi mu ko joxoñ moom bi mu ko joxoñ yonent bi mu ko joxoñ. doxinam wépp. doxinam wépp. dara lépp jëm ci boromam. doxinam lépp rek jëm ci boromam. jëm ci yonent bi. kon loolu du kuñ mën roy Ken du ko jëm sax waaye nag nañ def suñu kem kàttan nekkal ko ci ni mu ko bëggee woon rek fexe mel niñ bëggoon mu mel ni mel ni bu nu mën suñu kem kàttan bu nu mënee suñu kem kàttan lu nu kem kàttan lu nu men lu nu gën koo jublu nu gën koo jublu gën jublu suñu borom lu mu mën suñu kem kattan. lu mu mën suñu kem kattan. ñu gën a dumóoyu adduna. gën a dumóoyu adduna. ndax noonu la ko bëggee. ndax noonu la ko bëggee. bala nga koo sant. bala koo sant. nekk nekkal ci li mu bëgg. da nga koy nekkal ci li bëgg. la mu bëgg nag. la mu bëgg nag. mooy jublu yàlla mooy jublu yàlla rek. dumóoyu it adduna. dumóoyu it adduna. ko defee nag. bu ko defee. diggante bi diggante bi. lu nu man suñu kem kattan. lu nu man suñu kem kattan. ci def ndigal ci def ndigal li. bàyyi tere bàyyi tere nu di ko def suñu kem kattan. kon loolu. kon loolu. mooy doxin wi nan ci góorgóorlu bu baax. kàddu gi. loolu kon bay boobu jox sëñ Bas. kàddu gi ndax ndax buñ duggee foofu. du xam fu fu ñuy yemee. kon li ci des mën nañ koo jox sëriñ Bas rek mu eggale ko. kon sëriñ Bas eggaleel kaddu yi.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 kàddu yi yu may yónni ci bokki taalibe yëpp ak bokk jullit yëpp tañ ñu xeebu lool ci jottali ko ci ni ko war a defee waaye ni mu ko waxee léegi rek ñu jéem rek suñ kem kattan ndax kàddu yam daa wax ay kilifaam rek benn baatam moo gën suñ junniy baat foofa la ko suñ borom teg kon ñi ñëpp di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax dundam gépp fii mu wax ci diggam ak sëriñ bi foofu la ne dundam gépp ak jaamu yàlla dundam gépp liggéey Sëriñ Tuubaa képp loo ko def sox doyoo ko leneen kon yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér kàddu yi nag li ci jiitu mooy nuyu bokk jullit yëpp ñu bokkal lislaam ji yëpp di nuyu itam bokki réew mi yëpp di nuyu bokki taalibe murid yi nga xam ni nag ñoom la sañu digal sañ leen tere ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne li doon sabab si mooy sëriñ bi dafa def li i'tikaaf fii ci jàkkee sëriñ Mbàkke Madina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ànd ak waa ahlu badrin yëpp sëriñ bi nag ba mu leen gisee amatut jàmm amatut dara lu muy xalaat lu may xemmeem seen cëriñam mu wax rasulullahi salaam bisam mu wax ko ne ko dañ la teg natt yu métti wax xam ne dana diis lool yoo xam ne néewaa na koo xam buñ ko ko tegee mënoon naa nekk wàllu àgg ci yàlla waaye da ak nga mën naa dem bëri ki ko at sëriñ bi ne ko ruugi de laa bindut ba xam lu attana lu mu anut waaye boo ko attanee rek jom ji attan ko mu ne ko nag natt bi kenn du la ci dimbale kenn du la ci jàppale mooy astaxlisoo li nafsi waaye sëriñ bi daal di mu sarte moo ko ne ko nag ñaar dana ci am dëkk bii nga nekk muy Touba danga koy daal di génn ndax yaa ñaanoon sa borom ne ko bu fi wenn wenn ay mën a tabbi kon aw ay mun laa jugee di fen di la fekk ba jaris am na sa waajur ñu wax Serigne Bousso bi mi ngi dund te nitu yàlla la te mi ngi jël ay ñaan ko jëmee ci yow li fi mi ngi dund natt bi duma ak si yow moo tax Serigne bi daal di génn dëkk bi dem Mbàkke Bari ngir xaar fa natt bi natt bi nag sëriñ bi def ko. rasulullahi xamal ko ne nattu natt bi ne mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp lañ lay booleen mooy nattu yu saahir ak nattu yu baatin saa su bis bi agsee nattu yi ñu tegoon day dañ koy fulaat ba mu yokk sëriñ bi di ko dékku di ko dékku di ko dékku ba samaani xëy jinni yi mat ba nattu bay jeex nag ci at mu mujj ma sëriñ bi wax ne rasulullahi da ko xamal ne ko mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp maase nañ dajaloo ngir jéem a seet nuñ jëmee ci sa jëmm ji te yaakaari mbooloo duma ko tas kon nag na nga seet nooy def sëriñ bii nee na mu am jomi jéem a dékku natt bi nee na ba bañ songee jëmm ji ba jëm si ci moom nag alxuraan soppaliku jëmm dox di gëm ñoom suñ boobaa xamal ko ne ko foofu la na nattu nattu bi nattu bi di jeexee waaye li ma la ci faye mooy waa banoo Israël yi ngay jamonoonteel yëpp ndax ku yàlla sàkk ku ne bind na këru àjjana bind la këru sawara mboolem waa banoo Israël yi ngay jamonoonteel yëpp seen kër yi leen waajaloon yëpp may naa la ko Sëriñ Tuubaa ne ko defaat naa ko addiya saxaaba yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko man de dara du jóge ci man di dellusiwaat سيرين بي نك كون دنتال مكو با الك نده سما واكري بوبي جومبالنا لن اجنا جوني خارون كين دلن كو جخ نيپ لا فغول اجنا كون دنتال مكو با الك بندي با اك بيس بينج كيب كوما تي وار ديمبل ما ديمبل لي كون سيرين بي كين مونو كو فاي لي جاد ربي بالمناسي لدى تهربي مطيبا للغلدان inni jahaltuha hadaya lilchahab radiya anhum man xamani han chahab kon mooy kër yooyu nga xam ne joxoon ko kon nag bis boobu mooy bis bi nga xam ne ci la sëñ bi digle ñu sant la ko ci yàlla wax ne nag ko ci ñëpp sant la yàlla tàmbale ci ganaar ba ci gileem lu ci waay mën na ko ci defar den nag mi ngi dajeeg ajjuma ñaar fukki fan ñett ci weeru ut wii eh, sëriñ bi neen moo koy fàttali ñëpp di ko yëgal bokk julli yëpp di ko yëgal bokk taalibe yi nga xam ne nag ñoom la sañuy digal sañ leen tere di ñaan nag bis ñu àgg ci ak xam ne ne Serigne Touba bisam bi ñëpp ko bokk mboolem ko di julli rek ndax ni mu ko waxee rek wahabta lii kaw na jamihil awliya ahibati fii ka analta mayliya nga ci mboolem koo ne wàllu la rek ak cofale sama moom loolu nag moo sar ba àdduna sëpp ci bëgg kon nag sëriñ bi naan mi mi ngi ci soññ taali bi yëpp di leen soññ it ñi mu sa ñi di leen sant ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak sëriñ bi ba sëriñ bi defal leen li mu leen defal di sant mbokk taalibe yi ci liggéey sëriñ Tuubaa nga xam ne ànd nañ ko moom te li ci mujj ñu nekk ci ba nag mooy daare Cheikhul Khadim ji nga xam ne tàmbali woon na ko ba sori na ba ci des bëriwut waaye ba nag ni ñu ngi ci liggéey ba mu ngi leen di sant ci li weesu lépp. di soñat bokk taalibe bi yëpp ñoo xamné ne liggéey bi du ag ndax mourid mom du wàcc du noppalu ndigal lu jeex rek leen ak siwaat kon neena mi ngi soñ bokk taalibe bi yëpp ak ñu bokk sëriñ bi ak ñu bokkal yoon wi yëpp ni mu sante bokk jil yëpp nag ndax moom xam na ne fii mu toog dafa doon Serigne Touba Serigne Touba dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon ñëpp la fi nekkal la Serigne Touba doon naan naan yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin irham jami'al wara yaa hadiyan rada فوف لا طاغ موي نيكال في ادنا سيب كون مي نكو ييغال ادنا سيب ديكو ييغال بوك جول ييب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سمين الله عند جولي ابليس اذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري